mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñuy seetaan ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm waaye di ko sàkku ci yéen nuyoo bi ak siyaar bi ak ñaañ nag dañ ciy jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Bachir moom Sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul di ñaan yàlla na yàlla guddal fanaam yàlla na ko yàlla wéral ba li mu yéenee liggéeyal maamam Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu def ci lu kawe njort ñépp noonu lañ koy ñaanal mbooleem kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite ay tarixa ci réew mi di Sénégal waaye noonu lañ koy ñaanal tamit kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi ci wàllu saahir noonu lañuy ñaanale mbooleem waa réew mi yépp jàmm di ñaan jàmm ci mbooleem fa ab julli di yeewoo di am mbégte baax a baax desiwaat ak yéen ci seen mission bi ñu tuddee Sénégal démb fii ci Saxum Touba l'officiel di ñaan weeru sell wi ñu génn muy weeru koor lépp luñ ci woor yàlla nañ ko suñu boroom nangul te làqal ñu ko fi yàq yéggul di baal àq mboolem ñuy jàkkaarloo ak ñun waaye di balu àq mboolem ñuy jàkkaarloo ak ñun ak di ñu suivre di ñu topp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sëriñ Moustapha Jaxate xadimul xadim ñaan yàlla suñu borom guddal fanam wéral ko ba yéeneem ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi mu def ci lépp moom it lu kawe njort ñëpp di balu àq ak balu àq sëriñ Ablaay suñu caméraman bi ñu jàkkaarlool ak sëriñ Koso Sey di suñu géer di suñu xarit ak bokk yi ñuy siifur sëriñ Dambay ca bitim réew borom njàngat bu am solo bi ak mbokk yépp yi nga xamante ni dañuy bàyyi xel waxtaan bi nga xamante ni moom moo di senegal démb mbokk yi di am mbégte bu baax nag desuwaat ak yéen jàkkaarloo ak yéen fas yéene rek waxtaan ak yéen ci thème boo xamante ni mooy liy jokk ak bokk ak liy dagg ak bokk waaye bala dugg ci thème bi ñu leeral nag ci gan bokk lañuy wax nit moom mën ngaa bokk ak moom lu nekk ki nga bokkal génn kër sax bokk leen ci aadama ak awa sa mbokk ndax yéen bokk kër ki nga bokkal ab sëriñ danga naan sama mbokk taalibe la ki nga bokkal ab koñ danga naan sama dëkkandoo la ñoo bokk koñ parce que bokk gi rek ñëw na ñoo bokk yéen a bokk ñoo bokk koñ ki nga bokkal ab dëkk it da naan diw ñoo bokk ab dëkk ba ci ki nga bokk réew mi waaye bokk gi ñuy wax nag mooy bokkuk deret bokkuk deret nag mooy diw mii day doon baay ci yow baa yaay ci yow baa maam ci yow baa ndijaay ci yow baa jarbaat ci yow baa doom ci yow baa mag ci yow loolu lañuy wax bokk deret wax nañ ba tàyyi ci suñu émission yi daan wax nañ ni sëñ Tuubaa daana wax ni ak bokkulu lu jar a fonk la ndax yàllaa ko dogal kenn ci ñun ñi tàmmawul ni diw maay bokk ak moom kenn ku nekk ka nga bokkal yàlla moo dogal nga bokk moom bokk gi nag dogalu yàlla la yàlla def na ko ba pare waaye kon thème bi ni ñuy waxtaane mooy jokk bokk ak dog gi am na góor gu baax gu ñuy wax Baye Mandiaye Mbul borom ma la woon xikma nag ni ñu ma ko firilee mooy koo xam ni mën nay wax fii ba suba ci du wax ci alxuraan du wax ci addis ci wolof lay wax ci lu mu wax mën naa doon téere daana wax ni ñett yi dundal ak bokk benn saxu ci kawar muy aw làmmiñ ténq mooy ab loxo ténq ak ab tànk nee na ñett yooyu mooy dundal ak bokk su nee aw làmmiñ na xel yépp day dem ci wax maanaam ku koo xam ne day wax bokk gi di ko leeral di faram fàcce naan diw ak diw ak diw ak diw waaye tamit di wax lu baax maanaam koo xam ne day ne ci biir bokk gi yoon pusaam di ñëw di wax lu baax ñaar ñu réeroo sax mu wax bañ juboo di wax di defar ay sëy di fexe ba bokk gi di ràbbaloo nee na kon aw làmmiñ bokk na ci liy jokk ak bokk ah ngeen baal ma <coughs> bi ci des mooy ab loxo loxo nag mooy joxe maanaam baax na ci ay bokk lool ku tane dimbali moroomam ca waaye man damaa jàpp fii Sénégal <coughs> ñu jéggal ma boo nee tane ku tane dimbali moroom ja rek dañuy jàpp ne da ngay yëkkati xaalis may ko te wala fi dañuy wax ni jàngal may nit ki jën jàngal ko ni ñuy ko gën euh, buñ ne ay ay bokk ku ci nekk danga war a dimbalante dañuy jàpp ne rek ki nekk ci biir mbokk gi te am milliard daa war di yëkkati xaalis di dimbali ñu des déedéet ndimbal ak yaatu mbokk yi ci biir mbokk gi sax lii dundal mbokk gi baax dina ci baax mooy su fekkee da ngay tabaxlu ab batiment maanaam da ngaa bëgg a tabax sa kër te ci biir mbokk gi am maçon ñu lu ñu bokk ak ñee jëmbul sa ndiyaay ngi ci dëkk bi wala sa mag wala sa rakk buñ tabaskee ba ci suba sa nga jël ot xale yi yóbbu leen ñu yend ci seen i bokk xam ni fii ak seen kër benn la ndax seen mbokk fi nekk ñuy màgg ak xale yooyu di xamante di xamante di xamante suñ ko màggaalee dañuy dañuy bëggante waaye ak bokk li ci ban ma ma bon mooy isolé wu maanaam kenn ku nekk toog fa nga toog rek ca loolu nag li ma ci seetlu mooy jamono ji euh, nit ñi dañ naan diw bu ma fa demee dañ naan daa bëgg dara comme ni ma waxee ak bokk léeg-léeg gis koo xam ne dañuy tanante parce que loolu la mbirum suñu borom la maanaam amul benn famille booy dem ñëpp nekk ñëpp riis famille boo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp riis déedéet loolu moom yàlla dogalu suñu borom yàlla bëgg noonu àdduna waaw da dem ci famille boo xamante ni ñii ay milliardaire la ñu doon ñii duñ am lu ñu lekk ñii am tuuti ñii am lu yam ñii duñu am dara te ñoom ñépp ñooy bokk benn maam waaye nag kaa yi dañuy wax lu am solo dañuy wax ni mën ngaa ëpple say bokk waaye mënoo leen a ëpp man ngaa gën say bokk waaye mënoo leen a génn mën ngaa raw say bokk waaye boo leen négut saw doxin bu rafet seet tëdd bokki wax ju am solo ñu noonu damay jël exemple rek ci suñu jàmbaar ji ci sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul kenn ku nekk xam na ni moo gën ay bokkam waaye génnul ay bokkam waaw sëñ Tuubaa moo gën ay bokkam waaye génnul ay bokkam dëkk bi mu njëkk sanc muy daaru salaam ak limu mu taalibe yu bari rakkam la ko may ni maam Cheikh Anta bokk benn baay maam Cheikh Anta ak sëñ Touba ñoo bokk benn baay waaye te dañoo bokkaat seen ñaari maama bokkaat benn baay nga xam day rakkam ñaari yoon maam Balla Aysa ak Ibrahima Awa Ñang ñoo bokk maam Maaram maam Balla Issa di waajuru maam Mor Anta Sali muy waajur ku tedd ki sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak maam Mor Jaara Ibrahima Awa di waajuru soxna Anta Njaay Mbàkke muy waajuru maam Seex Anta nga xam ni soxna Anta Njaay Mbàkke daa sëy ak càmmiñam ndax moom ma mook sëñ Mbàkke Mor Anta Sali seen ñaari baay bokk benn baay sëñ Tuubaa dëkk bi mu njëkkee sañ ci ko Daaru Salaam ak li mu taalibe yu bari maam Cheikh Anta la ko may xanaa kon ko génn lu bokkam tukkeem bu neex bii te sori te sëri ci bi duun lool ca ñi taxoon muy tukki muy tukki muy taalibe yi kan la ko dénkoon ak yoon wi maam Thierno luñ bokk ñoo bokk benn baay seen ñaari maamaat bokk benn baay fii ne maam Cheikh Anta ak maam Thierno ñoo yem ci sëñ ci wàllu mbokk waaw bu dee maam maam maam Thierno sax Ahmadu Soxna Busa bu kenn la maanaam Ahmadu Soxna Busa kenn la mooy waajur maam Asawaalo muy waajur Soxna Jaar waaye Ahmadu Soxna Busa mooy xabsal mooy waajur Soxna Xabsaloo bi Mbàkke muy waajur Soxna Faat Isa Fana Fana Faat Isa mooy waajuru maam Thierno. nga xam ne moom maam Thierno dañoo bokk benn baay waaye seen ñaari maam jigéen ñoo bokk benn baay muy soxna Xabsa Law bi Mbàkke ak maam Assawaal ñoom ñëpp Ahmadu soxna bu saa leen jur muy dem ci tukki bi jël donga yi ak yoon wi dénk maam Thierno mbokk yi kenn ku nekk xam na sëñ Tuubaa fi mu teg xes yi nga xam ne day wax ni karaamati xattu yeddi comme ni ko jàngkat yi waxee maanaam sama teraanga mooy sama minum loxo mu féetale ko ak sëñ Masamba nga xam ne sëñ Masamba sax waajuram sëñ Mbàkke Moroom Sali gisu ko kooku génnul ay bokkam ba léegi de waaye liggéeyu sëñ Tuubaa bi di muy rëy rëy rëy rëy maanaam adversaire am bi ci gën a mag mooy tubaab bi digganteem ak tubaab bi mu doxale fi sëñ Balla Coro digganteem ak tubaab bi mu doxale fi diggante sëñ Balla Coro saa yu tubaab bi masaan bi wax ak sëriñ bi sëriñ Balla Coro day teew dëkk bee nga xamante ni fa la sëñ Tuubaa am fukki at ak juróom muy njaareew mu jëloon dëkk ba tepp ci loxo sëñ Balla Coro mbokk yi ak yeneen ak yeneen kon ne xanaa kii gën na ay bokkam waaye génnul ay bokkam bi ci des ñu ni man ngaa ëpple say bokk waaye mënoo leen a ëpp damay desuwaat ginnaaw léegi ci li ma waxoon ci wàllu bokk ñu suñ boroom di séddalee wërsëg maanaam ëpple say bokk te ëppoo leen mooy dangay nekk ci biir bokk gi yàlla mën a la gan comme ni ko wolof yi di waxe nga ëpp leen wërsëg foofu nag problème day xaw a am yow mi ëpp wërsëg ku ñëw ci yow di dox si bokk sax nit ñi dañuy jàpp ni xaalis ko indi ba ñu bari dañ duñ duñ nangoo jaar sa kër li nga def nag boo leen ëppalee doo leen ëpp mooy yow yaay dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom ku tawat nga seeti ko ku faatu nga jaale ji ko ku xewle bànneex su la ko waxee nga dem jaxasoo ñoom wàcc sa bopp. donte milliardaire nga waaye say mbokk lañ maanaam ëpp la ngi leen waaye mënoo leen ëpp ci ay bokk dañuy bañante waaye mënuñoo xasante ay bokk ay bokk mën nañoo bañante waaye mënuñoo xasante parce que koo bokkal mel na maam moom mënoo koo xas bi ci des mooy mën ngaa raw say bokk waaye boo leen dégul boo leen négul saw doxin rafet mbokki loolu mooy lan da gis ku bari la ba ni gàñ ëpp la mbokkam yépp waaye fu ñu ko tuddee ci mbooloo ni diw daa bari xaalis wala diw daa am nàngam wala diw lu ko yàlla defal ñu naa ah, moo ne day dimbaliwu ci mbokkam bu dee dëgg saw doxi rafetul ëpp la nga say bokk raw nga say bokk waaye saw doxi rafetul ca mbokk yi man dafa am benn baat bu may dégg wolof di ko wax te gis nga wolof Njaay nee na yooyu wolof Njaay nee dinaa ci ñëw ji émission spéciale bari na yoo xamante ni dañ naan wolof Njaay nee na benn ngor weddi na ko benn bi diine weddina ko benn bi jom ko weddi waaw muy wolof Njaay nee na yi ñu dégg ay wax la rek bari na ci yoo xamante ni soo ko waxee da naa la d'accord ma ci waaye bu ci gën a contre mooy wolof Njaay nee boo doon rey say noon say mbokk yi njëkk jeex maanaam baat bi ñaaw la. baat bu ñaawa gi noonu maanaam boo doon rey say noon say mbokk yi njëkk a jeex am na waaju baax sax ju ci booleel benn bis ni ma li ko gën a li ko gën a mooy xarit dina gën doomi ndey nee na loolu mënu koo gëm sëñ bi yooyu ay wax la rek soo doon rey say noonu say mbokk yi njëkk jeex léegi boo ko dee wax xale bi day jàpp ni mboolem ku mbokkal rek am noonam nga fii ne Sénégal boo xool ñëpp loolu la ñuy dox maanaam wax ko jàmbur sax. wala séqub jàmbur wala ab jàmbur xamal leen moo gën seen mbokk xamal leen bu dee sëy ñu ni noo sëy mbokk nangam ak nangam man damay takki ab jàmbur déedéet li wér te daal mooy lépp loo séq ak nit ki bu baax boo ko séqoon ak sa mbokk mu gën mbokk gi yàlla ko def yàlla du def dara ci hasard bu ñu neexoon mu wàccee ni mu fi wàccee garab yi waaye dañuy def ñu am ay ndey am ay baay am ay bàjjen am ay lépp léegi boo doon rey say noonu say mbokk njëkk jeex parce que loolu njuumte yi da cee bari ci wolof njaay nee dinaa ci ñëw ci beneen émission waaye dama cee bëgg indi benn rek dafa am góor gu baax bu ñuy wax Baye Abdou Baye Abdou Kader Samb dañ ma wolof wolof njaay day wax ni lu jot yomb man ko waa loolu de siiw na mun ma du dëgg de ma ne ah mun ma du lu wér lu jot yomb mun ma déedéet man ko lu ñuy wax ma lu yàlla dogal ma yomb man naa jot te yomb waaye bu ko yàlla dogalee rek ma yomb ci bari na ci baati wala fi yoo xam ñu ñu ñoo ko indi parce que ba doo xool jamono ji loolu loolu la ñu ah mbokk yi léegi de moom mbokki léegi suñu mbokki léegi yu mbokk mbokk la rek léegi nag mbokk mooy lan maanaam ndax dañuy wax ni nit ki soo ko xamee sa mbokk soo xamee loo bokk ak moom doonatu sa mbokk sa bopp boo demee ay ba ca alxuraan ji day wax ni xam lu leen ci seen bokk lu ngeen mën a jokki seen bokk kon xam nga day jiitu ba pare c'est-à-dire maanaam nit ki li nga bokk ak moom na nga ko. yow milliardaire ngay ànd milliardaire ngay fréquenté kon nawloo woo say bokk nawloo mooy soo gisee sa mbokk mu wóor ki ni kii li ngay jom moom lay jom foo nekk jàpp ni mën naa nekk. par exemple nga nekk milliardaire wala sax nga xam situation mën a doon milliardaire maanaam nga nekk situation rek ñëpp xam ne am nga situation say bokk ñëw ci yow am ñeneen ñu ñëw ñoo xam ne say bokk waaye yéen a bokk situation nga aj ñooñu suufeel say bokk bokk loolu da yàqu mbokk moo tax ay bokk dañu nawlante di demlante di fekklante di waxtaanante waaw loolu mooy loolu bokk na ci liy yàqu mbokk parce que bu fekkee yéen a bokk menn maam rek loo ko kii rek day gis boppam kon loolu ñu bàyyi ci xel baax a baax a baax làmmiñ wi ni mën a defar ak bokki noonu la ko mën a yàqe parce que làmmiñ yàlla da koo bind ngir muy wax lu baax waaye am ñoo xam seen làmmiñ ci biir bokk ki jaxase rek yow di diw nangam ak diw di nàngamaki ak nangam ba bokk yam maanaam wax lu baax ci ak bokk ni muy defaree ak bokk wax lu bon ci ak bokki noonu la yàq ak bokk tànk bi it mën naa yàqu bokk tànk bi ndax dañuy wax ni boroomi bokk su aw yoonam jubeet am xelum jubut waaw loolu nag li muy tekki mooy dangay jóge fii ma toog ci Mbàkke yi ni maa ngi dem gaaraas daaru mu si doxi fa yitte yoon wi jub lool waaye ci yoon wi ngay dox ni di dem yaa ngi naan man de sama mbokk yi dëkk fii de sama mbokk yi dëkk fii de am na sama mbokk yi dëkk fii am na kilifa gu ñu baax gu ma nettali ni sëñ Basiiru mas nay yebal doomam ndar la suma jiwut waaye digal ni ko soo àggee na nga dem kër diw ko xam ne mbokkum sëriñ Basiiru la nee na sëñ Basiiru da ko caa tegal ni ko soo demee ci ab dëkk da dal ak sa mbokk nuy gis sab xarit waaye bu ñu xoolee leen jamono yi contrairement waaw ci dëkk da ngay sa mbokk nuy gis ab xarit waaye nag seetlu leen li ma ne lu bu baax a baax li ma leen wax fii nag jamono jii ñuy dund moom contrairement dëkk boo dem sab xarit ngay dalal nuy gis sa mbokk am na ñoo xam mbokk. waaye léegi dangay dégg ku naan ah yii ma ne di moom wala moom sax dangay dangay dégg ku ku ngoro ji ab jànq ab jànq maanaam seeti jànq bi ngoro ji ak moom ñu dàq la wala wax ji yëggu sax ku la fa dégg sax danaan di boobu doo mën a ndax dégg naa diw demoon na fa pourtant soxna si mën na laa bañ a bëgg mais bëgg diw moom gis nga mbokk nga ngeen yéen ñëpp ngeen bañ a doon mbokk yéen ngeen doon ay mbokk mais Sénégal daal ni ñu jàppe mbokk léegi bokkut ak ni ko mag ñu jàppe woon loolu na xanaa day ñëwaat rek ci turu émission bi muy Sénégal démb ak tey li ko gënoon a yombal nag dé démb moom li xewoon mooy ab dëkkay am kenn koy sañ jabootu ñëpp bàyyeeg ñëpp benn dëkk bi lay doon ñëpp benn famille bi lay doon ñëpp amul kii amul kaa léegi nag jamono dox na waaye du teye ba léegi mbokk yi ak mbokk dox ak wax ak dimbalante te yàlla tax maa ngi ci soñ ñépp yi ñu xewal ñu tudde famille groupe WhatsApp yi lu am solo la dem ci mbokk waxtaan kaf ree ndijaayi waxtaan ak jarbaali jaam yi kale sang yi loolu luy dundal ak mbokk la waaye bu kenn ku nekk toogee rek parce que li li gën a garaaw ci mbokk yi léegi dañ naan fii ne moom kenn yaakaarul kenn daanaka bu kenn ku nekk amee ab as as kër am soxna amul liggéey rek dangay toog sa kii waaw waaw man du ma dem ci kenn du loolu ay bokk dañuy demlante di fekkalante di dimbalante te yàlla tax waaw waxoon naa ci émission bii jàll ci géwél yi man leen ab géwél day am jafe-jafe léeg-léeg ndax bokk gi yàlla day def def ñi am ñi amuñ ca loolu su fekkee da ngaa jël ki am tekki ci amul te ñu ne maam rek jafe-jafe am ak mbokk lu neex la mbokk maanaam nit ki nga bokk ak moom xam lu ngeen bokk da ngay gis nit ñuy ànd cent ans quatre dimanche waaye sax même bu fekkee bokk nañ sax ak bokk lu leen boole maanaam business la leen di boole business. kon mbokk yi xam naa maa ngi jégalu ci émission bi émission bi dama leen koo jox spécial ndewenal rek waaye di waajal ay yeneen émission comme ni ñu ko defee woon Mbàkke euh, Xuru Mbàkke jëmbul émission bii di ñëw nag ñu ngi leen jox di daje ci yeneen dëkk yoo xamante ni dëkk yu am solo la muy émission décentralisée lay doon comme ni ñu toogee fii tey dañu dem ci yeneen dëkk yi dëkk yu am histoire ci yoonu murit ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan koor gi ñu génn yàlla nañ ko kori ay at yu baree bari di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ko wér ak njabootu Serigne Touba Xaadim Rasul gépp jamono ji nag ku di jullit di wax nit ñi di jàkkaarloo ak yow nga wax ba daaneel loolu moom lañu waroon ubbee sax sa xel war naa dem ci waa Palestine mbokk yi yal na leen suñu borom sàmm yal na leen suñu borom aar. yàlla suñu boroom féexal seeni xol ñafa seeni bakkan daanu yàlla ñu mel ne ñu daanu ci jihaat te ñoo ñu leen def loolu ne yàlla suñu borom alag leen ca fépp fu ab jullit nekk yàlla am jàmm seen mbokk la woon seen xarit seen doomi nay maxtaar umi